مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة benn mbootaay boo xam ne borom xam-xam yi Afrique yëpp ñoo ko nànk mu amoon ay jotaay yoo xam ne defoon nañ ko foofu noonu ci Maroc réew mu nekk ci Afrique am na ñu présenté mbootaay boobu noonu fii ci Sénégal këru diine yi nekk ci Sénégal yépp ñu ngi bokk ci biir mbootaay boobu noonu ki ko jiite di docteur Rokhane Ngom ki topp ci moom di Cheikh Mouhamadou Karachi Ibrahim Niass mu am benn concours alquran boo xam ne buur bi dafa sàkku ñi amal ko ci weeru koor wii boo fa ci Maroc mu sàkk ci réewu Afrique yi ne réew mu nekk këru diine ya fa nekk nañ fa tànn juróomi nit ñu defal leen benn concours ñaari nit dañ ci génne ñaar ñooñu ñoom ñooy dem Maroc ci concours bu mag boobu nga xam ne international fii ci Sénégal ñu tànn wàllu dina bàyyi ne bugg nañ Tiwaawoon juróomi nit ci Touba juróomi nit ci waa Kër Cheikh Oumar juróomi ci waa. waa Ndiassane muy ñaar fukki nit ak juróom tey jii la jox amal concours bi ci centre docteur Rawaan Ngom Rawaan Mbaye ñaar fukki xale yi ak juróom teew nañ këru diine bu nekk da indi kenn koo xam ne arbitre lay nekk ak kenn koo xam ne xale yi nga indi moo leen di encadré suñu jabar Baye Xaaj Ñas di doom ci Cheikh Awa Diagne ak Rabia Abdou Cheikh Ibrahim moo teewoon ku nekk arbitre beneen yeneen kër yëpp tamit kenn ku nekk indi woon na sa arbitre ñu commencé jotaay bi ci huit heures suba ba gannaaw julli timis si la door a pare bi résultat yi génnee amul benn kër boo xam ne teewul te amul benn xale bu manqué tamit ci concours bi nga xam ne ñu ko doon def bi résultat yi génnee nii la tëddee ku ñuy wax Mouhamad Moustapha Niang jugee Medina Baye moo jël paie. ki ci topp Maki Touré la tudd jugee Medina Baye moo jël deux. ki topp ci loolu Mouhamad Lamine Diante la tudd jugee Medina Baye moo jël numéro trois. maam Jaara Ngom la tudd jugee Touba Mbacke moo jël numéro 5 ki topp ci kooku Babacar Ñan la tudd jugee Medina Baye moo jël 4 ki topp ci kooku Ndey Faatu Njaay la tudd jugee Medina Baye jël 5 mu nekk